yàlla na fi des yàllal yàlla yàlla jox barke soxna jaara rafetlu bu baax teewaayu ministre Khadim Diop bii toog ci suuf te nga xam ni danaa koy wax toujours ni ko sëñ Bachir ëpp na waaye sëñ Manar doy na moom itam Mbakke taxawaayam ci wetu nijaayam taxawaayam ci yoon wi ak taxawaayam ci président de la république rafetlu nañ ko bu baax a baax moom nag tubaarkàlla moo dalal gan ñi ñu déglu nag ni ma ko Seex Mamadul Bachir mu sëñ Moussa waxe woon dañuy déglu Cheikh Mamadul Bachir moom sëriñ Abdul Xaadir moo yor kàddu sëriñ bi waaye ni tax mu yor kàddu sëriñ bi sëriñ Muntaxa doyloo ko jege na lool soxna jaar kii bëgg a wax jege na lool soxna jaar sëñ Abdou Khadir sëriñ bu bi soxna jaar sëñ Balla mi jur yaayam sëriñ Bousso bi ak soxna jaar bokk ndey ak baay jege na lool jaar dafa am fu nu nekk rek te ñàkk ku baax muy sëñ Cheikh Dar Rahman waaye kon bala ma laa jox rajo bi danaa la wax yaay kan yaay jege jaar ku munta ku munta gàkkal alxuraan munta gàkkal sa der bi liggéeyal sëñ Bamba te bul gees kan gars yi ku leen raw ñu dabay law lammiñ sa sa maama lay liggéeyloo raw nga bu déglu kan sëñ Abdou Khadre ma ca penkum jumaa ja ku mun ta gàkkal alxuraan mënu laa gàkkal sëñ bi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu wax ne bokki jullit yi fi teew ak bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifatul aam li tariqatil muriidiyya di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Issakha Mbacké mi toog di rakkam te teewal ko ci jataay bi di kilifa jataay bi nee na kon sëriñ bi mu ngi nuyu ñëpp di dalal ñëpp ci jàmm di nuyu mboolem njabootu sëriñ Touba gi nga xam ne ñëpp a fi ñëw njabootu sëriñ Touba nag bu ñu ko waxee képp ku yaakaar sëriñ Touba rek tàbbi biir waaye ñu di ci tànn ñenn ñi teew ci jataay bi bu ñu ci tuddee ñett rek mu mën a yóbbaale ñi ci des mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Abdoulaye Lahad ak Serigne Bassirou Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ak Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Mahmoudan Diop ak Serigne Abdourahmane moom Serigne Cheikh Gaïndé Fatma ak mbooleem njaboot bi yëpp sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam leen ne jotaay bii ñor na ko lool ndax moo fi sëriñ Touba moo fi Cheikh Mouhamadou Bachir kon lu ñuy def fii moom lañ koy defal nee na kon nag mi ngi nuyu ñëpp bala ñoo tàbbi ci wax ji nag ñu fàttaliku sunu kilifa gu baax gii nu ñàkk muy Serigne Cheikh Mbacke Darou Rahman na ñu delluwaat rek ci li alquran santaane woon wala nabluwannakum bi shay'in min alxawf wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfus wa samaraat waaye wa bashiri saabiriin allazina iza asaabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ulaa'ika alayhim salawaatun min rabbihim wa rahma wa ulaa'ika humul muhtaduun nee na xanaa ñu delluwaat ko foofu rek nattu bi ci aaya boobu te xam ne kilifa la woon gu am solo ndax bi fi waajuram bu tedd wa di bàyyi ko di Abdullahi borom dër bi ñu ngi ko fekk ci fukki attan ñett mu doon xalifa ci fukki at ñett loolu bëriwut ci yoon wi ba tey mu dem ci juróom-ñaar fukki at ñaar te yàlla dimbali ko it ndax ku jote ak xilaafa foofu nga jàng ba xam li nga war a xam ci diine tër bi yow ba mel na nga war a mel loolu ndimbalul yàlla la kon moom jëmm la woon joo xam ne bokkoon na ci ñi Sëriñ Tuubaa di puugare woo ci ak njabootam ndax yàlla dimbali na ko ni mu feeñ ba niñ ko noppee gisee yàlla def na mas def lu naqari yàlla loolu nag yombut loolu tawfeex ju rëy la doonoon ab jàmbur di ko nangoo liggéey doon jëmm joo xam ne kenn mësu koo dégg ci mbiri àdduna doonoon jëmm joo xam ne itam intervention kenn mësu koo dégg dafa nekkoon ci liggéey ak jaamu yàlla ak doyloo la ko sëriñ Tuubaa defal kooku nag kon buñ ko ñàkkee dañuy jàpp ne yoon wépp ko ñàkk yàlla def na bi mu wéradee ba war a tukki moom mii moom Cheikh Bass moom la ko Cheikh Mamadou Mountakha booleel ngir ñu topp tool ko lu ko mën a génne ba mu ko xamee ba na nga ni la mas a dégg yitteem te sëñ Cheikh Bass nee na jàppul ne kenn mas naa dégg yitte sëñ Cheikh Darou Rahmane nee na lool nag sëriñ bi am ci ji rëy ba mel na suñu borom da koo xamaloon lañ nar a xew moom nee na kon yàlla ko suñu borom doole ay leer te taas na ci barkat te dëgëral ak njabootam gi mu fi bàyyi lay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara soxna jaara moo di ba mi desi di beeñaat teeram wa de foofu ndaw soxna jaara bu kon mi neefi tey duñu beew